jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey jii mooy yéesu dige na ne dina dellusi benn bés nettali bi mu ngi cosaanoo ci Macë saar ñaar ak ñeent aaya benn ba fanweer ak benn ak fanweer ak juróom benn ba juróom fukk ak benn saar ñaar fukk ak juróom benn aaya juróom benn fukk ak ñeent mark saar juróom ñett aaya fanweer ak juróom ñett luk saar fukk ak ñaar aaya fanweer ak juróom ba ñeent fukk ak juróom benn saar fukk ak juróom ñaar aaya ñaar fukk ba fanweer ak juróom ñaar benn waa tesalonik saar ñeent aaya fukk ak juróom benn ba fukk ak juróom ñaar benn bés fekk yesoo ngi woon yerusalem ak ay taalibeem ñuy wax ko ci mbiru kër yàlla gu rafet ga yeesu ne leen bés a ngi ñëw dinañu toj kër yàlla gannaaw gi fekk yesoo ngi toogoon ci kaw tund oliw ya ci geneen feggu xur wa jóge yerusalem taalibe mi laaj ko wax nu kañ la loolu di am te luy tegtale ne yaa ngi ñëw te àdduna di tukki Yeesu tontu leen ne moytu leen bu leen kenn nax ndaxte ñu bari dinañu ñëw ci sama tur ne maa di Kirist te dinañu nax ñu bare mbir yu bare dinañu xew ci xeeti àddina si dinañu wax xebaaru nguuru yàlla gi fépp gannaaw loolu lépp jeex yeesu ne delluseem dafay mel ne melax mu tàkk asamaan mu ne bu ñu leen waxee nekk seet leen mu nga nale ci àll ba bu leen génn mbaa ñu ne seet mu ngi nii ci biir kër gi bu leen ko gëm booba firnde ji taxaw doomu nit ki feeñ ci asamaan te xeeti àddina sépp dinañu jooy dinañu gis doomu nit ki di ñëw ci niiri asamaan si ànd ak kàttan ak ndam lu rëy malaaka yi dinañu yëgle dellusi bi ak ay liit yuy liit ca kaw te dinañu ñëw ngir taalibe yi fépp ci àddina dajale leen ndaxte dina mel ni ci jamonoy nooyin nit ñi ñu ngi doon lekk ak a naan di takk jabar ak a maye jabar ba bésu mën na ma xamuñu dara ci di doon xewi Yeesu wéy ne bu boobaa ci ñaar ñu nekk ci tool dinañu jël kenn ki bàyyi ki ci des ci ñaar jigéen ñuy wol ca ëtt ba dina jël kenn ki bàyyi ki ci des kon xool leen ndaxte xamu ban bés walla wan waxtu la seen boroom di ñëw noonu Yeesu wax leen nettali bii kan moo nekk surga bu takku te teey bu njaatigeem teg ci waa kër gi ngir mu leen di dundal ca jamono ja dina doon bànneex ci surga bi sangam fekk mu takku ci liggéeyam bi mu dellusee waaye su fekkoon sang bi dafa am lu mu sant surgaam daldi dem waaye jamono ji sang bi nekkul surga bu bon bi ni ci xelam sama sang bi yàgg na àll noonu mu tàmbalee dóor yeneen surga yi tey lekk ak a naanandoo ak yeneen nit ñu bon sangu surga boobu dina dellusi benn bés bu ko surga bi foogewul ca waxtu wu surga bi xamul noonu sang bi dina daan surga bi dàq ko ci ab bérébu jooy ak yeeytu yeesu ne ay taalibeem war ngeen fagaru ndaxte doomu nit ki dina dellusi ci aw waxtu wu ngeen ko xaarul kenn xamul bés boobu du sax malaaka yi nekk asamaan baay bi rekk ko xam ndaxte borom bi moom ci boppam dina wàcce ci asamaan booba ñi gëm kirist dee dinañu jëkk a dekki gannaaw loolu nun ñi dund te des fi dinañu fëy ak moom jëm ci niir yi tase ji ak borom ci jaww ji te noonu dinañu nekk ak borom bi ba faw am na ab artu bu nekk ci téere bu ñu wax ci mbirum njeexti àddina maanaam peñu bi bu ne maa ngi ñëw nib sàcc bëgg nga yow mi nelawul te di wottu say yére ngir bañ a dox yaram yaramu neen ñuy gis sa gàcce fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bi noonu it la kirist joxe boppam benn yoon ngir gàddu bàkkaar nit ñu bare te dina feeñaat waxuma ci mbiri bàkkaar waaye ngir indil ñi koy séentu mucc gi yawut yi saa juróom ñeent ay ñaar fukk ak juróom ñett